sëriñ mbàkke soxna sëriñ mbàkke soxna mu ngi feeñ jamono ci atum 1851 ci dëkk bii nag di mbàkke bawal ci dëkk bii nag di mbàkke bawal nag la sëriñ mbàkke soxna feeña jamono ci atum 1851 di doomu maam soxna sekk ak sëriñ abdu xaadir mbàkke moom sëriñ mbàkke soxna nag am na kenn nag kum bokkal waajur wu góor ak waajur wu jigéen muy ku ñuy wax soxna assowaalo mbàkke bintu maam soxna sekk bintu sëriñ abdu xaadir mbàkke ak moom sëriñ mbàkke soxna ibnu maam soxna sekk ibnu sëriñ abdu xaadir mbàkke soxna mbàkke mii mu bokkal waajuru góor ak waajur wu jigéen bi mu matee dem kër ci dëkk bu ñuy wax xulle nag lañ ko yóbbu woon dëkk bii nag di xulle mi ngi ci wetu dëkk bii nag di ndula ñu boole ko fàkku ñuy wax sëriñ tafsir mamar xulle sëriñ tafsir mamar xulle mi ak soxna Asta Wala Mbàkke am nañ ak njaboota ñu mën cee ràññee sëriñ Moodu xulle sëriñ tafsir mamar xulle mi mook soxna xuréja mi meññi sëriñ baara xuréja moom Mamor Jaara ñoo bokk nag kenn ku leen meññi soxna Asta Wala Mbàkke moomu nag la bokkal waajuru góor ak waajur wu jigéen seen waajuru góor wi nag di sëriñ Abdu Xaadir Mbàkke mooy taawub maam Balla Aysa Mbàkke ngir xamale leen nag seen waajuru góor woowu nag di sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke moom mooy kan doomu maam Balla sa Mbàkke la moo nekkoon itim taawub maam ay sa Mbàkke moom sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke nag mu nekk itim nag ku mokkal alxuraanul karim nekk itim nag ku ko daa jàng ak di ko jàngale nekkoon itim nag ku sell nag aw njàngin baat bi itim nag neexoon lool itim nag ci saa su ne buy jàng alxuraanul karim tax na waajuram wii nag di maam Balla Aysa Mbàkke nag bëggoon ko lool Mbàkke mii nekk nag ci ron waajuram maam Balla Aysa Mbàkke ba am bis nag mu doon tukki nag tukki bu yaatu wala mu tukki nag tukki bu yàgg ca biir tukki boobu nag àndoon na ca ak mbooloo mu takkoo takkoo takku ca biir mbooloo ma nag ñu mën cee ràññee sëriñ Moodu Jee Mbàkke moom sëriñ Ibrahima Awa Ñang Mbàkke moom maam Maaram Mbàkke ci tukki boobu mu amaloon nag ci la ko ay saay-saay dogale nag faat ko moom sëriñ Abdu Xaadir Mbàkke ginnaaw buñ ko faatee nag la waajuram wii nag di maam Balla Aysa Mbàkke wax ne Mbàkke Bawal nag mënatu fee nekk tax na mu tuxoo nag ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawal Joal dem ngay ginnaaw bu mu amee ngay nag ñaari at nag yu teg ay weer moom itim nag lañ ko faat nag ci dëkk boobu nag di ngay moom maam Balla Aysa Mbàkke taawoom bii nag di sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke dañ faat ko taxoon itim nag maam Balla Aysa Mbàkke bàyyi koo Mbàkke Bawal dem ngay ñi ngi ko denc nag ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawal doom jëm fi bàyyi woon nag mu nekk tuut tànk mooy sëriñ Mbàkke soxna mii nag ñu fas yéenee waxtaane tey jii moom sëriñ Mbàkke soxna nag laataa ñu ñëw ci am njàngam ginnaaw bu fi waajuram bàyyi koo sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke dañ koo faboon nag jébbal ko rakku waajuram moo di sëriñ mbàkke kajoor sëriñ mbàkke kajoor nag moo ko yar moo ko jàngal sëriñ mbàkke kajoor itim moo ko sampal kër fépp foo xam ne ni itim nag sëriñ mbàkke kajoor dem na fa kii di sëriñ mbàkke soxna itim nag ànd na fa ak moom moo xam xuru mbàkke poroxaan ak faneen kajoor dem na fa moom sëriñ mbàkke soxna nag bi matee dal alxuraanul karim sëriñ mbàkke kajoor miñ ko jébbaloon moo ko jàngal alxuraanul karim sëriñ mbàkke kajoor itim nag moo ko jàngal itim nag lii di xam-xam bam nekk nag ku géeju ci wàllu xam-xam mu wéy nekk ak nag sëriñ mbàkke Abdou Xaadir Mbàkke bi di sëriñ Mbàkke soxna ba mata samp kër sëriñ Mbàkke Kajoor mi ko yoroon delloosi ko nag ci dëkk bii nag di Mbàkke Bawal di dëkk nag bu mu feeña jamono dël ko nag ca kër waajuram wa booba fekk na waajuram sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke génn àdduna sëriñ Mbàkke Kajoor nag mi ko yoroon di rekk waajuram sampal ko nag kër ñu boole kook doomu Maamoor Anta Sali Mbàkke ba mu faye woon waajuram soxna Anta Sali Kan mook soxna Anta Sali Kan Mbàkke am nañu ak njaboota ñu ràññee ci soxna Faati Anta Mbàkke ak soxna Mbeen Mbàkke mu wéy nag des nag ci dëkk bu sell bii nag di mbàkke bawal di yar di jàng ak di jàngale ndax loolu donkat la ko waajuram wii nag yar xamal di sëriñ mbàkke kajoor ginnaaw bi nag jóge na ci dëkk bii nag di mbàkke bawal demoon itam nag ci saalum ci suuf suñuy wax jéeñeel jéeñeel googu itam nag nekkoon na fa yoroon fa daara itam nag di bay di jàng ak di jàngale ba tax na itam nag dëkkoo woon na fa ak geneen soxna juñ doon wax soxna ja Touré soxna ja Touré mii nag ku baax ki sëriñ Tuubaa xaadim rasul moo ko dëkkoo woon ginnaaw bu ci seexul xaadim amee nag ab taawam di soxna faati ja mbàkke dafa jëloon soxna si nag di soxna ja Touré jébbal ko magam ji nag di sëriñ Mbàkke soxna ba tax na soxna ja Touré ak sëriñ Mbàkke soxna nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññeek sëriñ Mbàkke soxna faye woon waajuram wa di sëriñ Abdu Xaadir Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdu Ja Mbàkke du yooli moo soxna ja Touré itam am nañ geneen njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Ibrahima ja Mbàkke moom soxna ja Touré moom sëriñ Mbàkke soxna soxna Buso ja Mbàkke moom soxna ja Touré moom sëriñ Mbàkke soxna soxna Xari ja Mbàkke moom soxna ja Touré moom sëriñ Mbàkke soxna ak sëriñ Muhammadu Lamin ja Mbàkke moom soxna ja Touré moom sëriñ mbàkke soxna kon njaboot gii nag la sëriñ mbàkke soxna am ci soxna ja Touré mu wéy nag des nag ci suuf soosu nag di saalum ci dëkk boobu nag di jeeñeel ginnaaw bi itam nag jógewaat na ci dëkk boobu nag di saalum ñëwaat nag fii mu feeñe jamono nag di mbàkke bawal ci quartier bii nag di mbàkke xewar ca ran xaritam ba maam moor jaara mu wéy nag nekk ak maam moor jaara fabug njabootam itam nag jaxase ko ak njabootug maam moor jaara gi ba tax na moom maam moor jaara itam nag séqoon lu takkoo takkoo takkoo takku ndax ak xaritoo akuk mbokk ba jaara dawul def dara ci këram te sëriñ mbàkke soxna yëgul ba lii di xéew lu sax su ko masaa def daanañ wooyi sëriñ mbàkke soxna ba mu ñëw ñoom ñaar ñu bokk xéewlu ak mbokk akuk jaxasoo nag gu ñu amoon tax na nag ginnaaw bu mu génnee àdduna te yëgaloon ko nag seen rakk ja di seexul xaddiim ma nga doon xamal na ñaar ñoo xam ne nii nag dañoo ànd nag ci seenu nekkin te ëllëg yow mal xiyaamitim nag dañoo fas yéenee ànd man xaadim rasuul nag duma leen tàggale nañ leen boole nag fenn nag fu ñu tëddaale ci armeer ya loolu nag moo fekk maam Mor Jaara ak Serigne Mbàkke soxna fenn fu ñu tëddaale ndax nag ak xaritoo gu ñu amoon nag ci zaayir mu wéy nag nekk nag ci ron xaritam bi di maam Mor Jaara wéy itam nag nekk nag ci kër waajuram Serigne Abdou Xaadir Mbàkke di jàng di jàngale di yar comme nag na ko waajuram wa Serigne Mbàkke Kajoor yare woon ba tax na itam nag dëkkoo woon nag yeneen i soxna ñu mën cee ràññee soxna suñuy wax soxna yónni sekk mook soxna yónni sekk itam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee Serigne Moodu yónni Mbàkke moom soxna yónni sekk moom Serigne Mbàkke soxna ak soxna Faati yónni Mbàkke moom soxna yónni sekk moom sëriñ mbàkke soxna ak soxna ummi yónni mbàkke moom soxna yónni sekk moom sëriñ mbàkke soxna ginnaaw soxna yónni sekk itam nag sëriñ mbàkke soxna dëkkaatoo woon nag beneen soxna muy ku ñuy wax soxna faati gay njaay moo soxna faati gay njaay itam nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ moom faati gay njaay moom sëriñ mbàkke soxna soxna ak soxna daba mbàkke moom soxna faati gay njaay moom sëriñ mbàkke soxna ba tey soxna yi sëriñ mbàkke soxna dëkkoo ñu mën cee ràññee soxna faati daam ñang soxna faati daam ñang mi mook sëriñ mbàkke soxna am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ abdu sakóor mbàkke mi nekkoon juróomeelu xalifa sëriñ mbàkke soxna ak soxna ami mbàkke ba tey soxna yim dëkkoo woon ñu mën cee ràññee soxna roqaya jatara mook sëriñ mbàkke soxna itim nag am nañu njaboot ñu mën cee ràññee kam faye woon sëriñ ndaam abdourahmaan loo di sëriñ ndaam abdourahmaan mbàkke moom soxna roqaya sa moom sëriñ mbàkke soxna ba tey soxna yi nga xam ne nii sëriñ mbàkke soxna dëkkoo na leen ñu mën cee ràññee soxna absa njaay soxna absa njaay mi mook sëriñ mbàkke soxna am nañ ak njaboot sëriñ Modou Absa Mbacke moom soxna Absa Ndiaye moom sëriñ Mbacke soxna sëriñ Ibrahima Absa Mbacke moom soxna Absa Ndiaye moom sëriñ Mbacke soxna sëriñ Sam Absa Mbacke di kim faya xaritam ba Mamor Diarra moom soxna Absa Ndiaye moom sëriñ Mbacke soxna soxna Mbacke Absa moom soxna Absa Ndiaye moom sëriñ Mbacke soxna soxna Assu Absa Mbacke moom soxna Absa Ndiaye moom sëriñ Mbacke soxna ak soxna Faati Absa Mbacke moom soxna Absa Ndiaye moom sëriñ Mbacke soxna njaboot gi nag la sëriñ Mbacke soxna am ci soxna Absa Ndiaye mu wéy nag des nag ci dëkk dëkk bi nag di Mbàkke Bawal fabuk njabootam nag jébbal ku baax ki sëriñ Tuubaa Rasuul ba tax na itam nag doom ji nag di sëriñ Abdu Ja Mbàkke ci loxoy Seexul Xaadim itam nag la nekkoon ba nim jotee ngërëmam ci Seexul Xaadim mu nekkit ku yéeme moom sëriñ Mbàkke soxna bokk itam nag ci sëti maam maaram yi nga xam ne nii nag ay royukaay lañ ba tax na itam nag mag ñim bokkaloon ëttub Seexul Xaadim bi wala mag ñim bokkaloon nag tundu Mbàkke wi ñëpp itam nag nawoon nañ ko bëggoon nañ seenu njaboot itam nag jaxasoog njabootuk sëriñ Mbàkke soxna gi melokaanu sëriñ Mbàkke soxna ak sëriñ mbàkke soxna nag amee woon yéeme googu mu yéeme woon moom sëriñ mbàkke soxna njaboot gii mu am itam nag yar bu ñu am tax na ak njabootam tasaaroo itam nag ci ëttub seexul xaddiim gi ñaari kër gu dugg daa fa fekk sa tub sëriñ mbàkke soxna ku lëre gu yaatu nag gum amoon nag mag ñi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasul rawatina nag ñi mu bokkal maam maaram doomam jii nag di soxna faati anta mbàkke sëriñ moodu xari mbàkke bu puf di nag lañ ko jébbaloon moom soxna faati anta mbàkke mook sëriñ moodu xari mbàkke bu puf di am nañu ñu man cee ràññe Mbacke ak ku ñuy wax sëriñ Ibrahima Mbacke njurul ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Modou Xari Mbacke moom poof di lañ ko jébbalaatoon nag ku ñuy wax sëriñ Xaamar Samb bokkoon itam nag ci jàmbaar yi toppoon ko baax ki sëriñ Touba Xaadim Rasoul soxna Faati Anta Mbacke moom sëriñ Mbacke soxna ak sëriñ Xaamar Samb nag am nañ ak njaboot ñu mën cee ràññe sëriñ Abdul Mujib Samb doomam jii di soxna Mbeen Mbacke sëriñ Modou Asta Touré bu lappe lañ ko jébbaloon soxna Mbeen Mbacke mook sëriñ Modou Asta Touré bu lappe nag am nañu njaboot ñu mën cee ràññee soxna Mbacke Touré soxna Anta Touré ak soxna Afi Touré doom ji di soxna Xarija Mbàkke sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Mbusoobe Bousso nag lañ ko jébbaloon soxna Xarija Mbàkke mook sëriñ Ibrahima Bousso moom sëriñ Mbusoobe Bousso nag am nañu njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Moodu Xari Bousso man cee ràññee soxna Faati Xari Bousso man cee ràññee sëriñ Abdu Xari Bousso man cee ràññee sëriñ Moodu Xari Bousso mu ndaw man cee ràññee sëriñ Yaxya Bousso man cee ràññee sëriñ Ahmadu Xari Bousso ak ku ñuy wax soxna Awa Xari Bousso doomu sëriñ Mbàkke soxna bii ñuy wax soxna Bousso Ja Mbàkke bi matee dem kër sëriñ Moor soxna moom Maam Moor Jaara Mbàkke di xaritam ba lañ ko jébbaloon soxna Busa Ja Mbàkke mook sëriñ Moor soxna am nañu njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Basiiru Moor Mbàkke sëriñ Moor Pakala Mbàkke sëriñ Baara Mbàkke ginnaaw bu fi sëriñ Moor soxna bàyyi ko lañ fab soxna Busa Mbàkke moom sëriñ Mbàkke soxna jébbalaat ko rakku sëriñ Moor soxna ba di sëriñ Baara Xureja Mbàkke mu am ci ku ñuy wax sëriñ Moodu Cheikh Mbàkke doomu sëriñ Mbàkke soxna bii di soxna Assu sa Mbàkke bi matee dem kër sëriñ Masamba Kandi Busa moom sëriñ Busoobe Busa nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Masamba Kandi Busa am nañu njaboot ñu mën cee ràññe soxna moomi busoo doomam jii di soxna faati absa mbàkke bi matee dem kër sëriñ ma fari njaay moom cheikh mamadul faadal mbàkke lañ ko jébbaloon soxna faati absa mbàkke moom sëriñ mbàkke soxna ak sëriñ ma fari njaay moom cheikh mamadul faadal mbàkke am nañu njaboota ñu man cee ràññe maam busa njaay man cee ràññe soxna xadi njaay soxna géwal njaay ak sëriñ murtada njaay doomu sëriñ mbàkke soxna bii di soxna mbàkke absatu bi matee dem kër sëriñ ibrahima fari mbàkke lañ ko jébbaloon soxna mbàkke absatu mook sëriñ ibrahima fari mbàkke am nañu njaboot ñu man cee ràññe sëriñ moodu Ibrahima Mbacke sëriñ Abdou Salaam Mbacke sëriñ Mamadun Mbacke soxna Jatu Mbacke soxna bu Mbacke ak soxna Daba Mbacke doomu sëriñ Mbacke soxna bii ñuy wax soxna Faati Yónni Mbacke bi mu matee dem kër sëriñ Mbacke Kandi Buso moom sëriñ Buso bi Buso nag lañ ko jébbaloon soxna Faati Yónni Mbacke mook sëriñ Mbacke Kandi Buso am nañu njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Buso bi Buso man cee ràññee sëriñ Hamdi Bilal ak soxna Maam Buso Murtada mi nga xam ne nii Cheikh Murtada Mbacke ibnu sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul moo ko dëkkoo woon doomam ji di soxna Ummi Yónni Mbàkke moom sëriñ Mbàkke soxna bi mu matee dem kër sëriñ Mandumbe Mbàkke bokkoon ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tubaa Xaadim Rasuul lañ ko jébbaloon soxna ummi Mbàkke yónni mook sëriñ Mandumbe Mbàkke am nañu njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Abdu ummi Mbàkke ginnaaw soxna ummi yónni Mbàkke bi mu jógee ci loxoy sëriñ Mandumbe Mbàkke sëriñ Mbàkke soxna aan moom sëriñ Mbàkke Kajoor nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ Mbàkke soxna aan moom sëriñ Mbàkke Kajoor nag am nañu njaboot ñu mën cee ràññee sëriñ Basiiru Mbàkke sëriñ Muhammadan Mbàkke soxna Njóoba Mbàkke doomam ji di soxna Jatu Mbàkke bi mu matee dem sëriñ xaasim mbàkke moom sëriñ xaafiya mbàkke moom mamor anta sali mbàkke lañ ko jébbaloon ba tax na mook sëriñ xaasim mbàkke am nañu njaboot ñu man cee ràññee soxna faati xaas mbàkke sëriñ cheikh xaas mbàkke ak soxna ami xaas mbàkke doomu sëriñ mbàkke soxna bii ñuy wax soxna daba mbàkke bi matee dem kër sëriñ moodu mbàkke gelongal lañ ko jébbaloon soxna daba mbàkke mook sëriñ moodu mbàkke gelongal am nañu njaboot ñu man cee ràññee sëriñ hamdi mbàkke gelongal ak sëriñ cheikh mbàkke gelongal ginnaaw bu soxna daba mbàkke jógee nag ci loxoy sëriñ moodu mbàkke gelongal lañ ko jébbal loolu nag Baye Serigne Bousso Ilimane soxna Daba Mbacke mook Baye Serigne Bousso Ilimane am nañu njaboot ñu mën cee ràññee Serigne Abdou Lahad Bousso soxna Daba Mbacke moomu sax moom Serigne Mbacke soxna mii moo des itam nag ci mbooleem njabootuk Serigne Mbacke soxna gi ñu koy ñaanal suñu borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram doomam ji di soxna Ami Mbacke moom Serigne Mbacke soxna bi mu matee dem kër doomu maam Moor Jaara Mbacke bii ñuy wax maam Balla Mbacke moom mesra lañ ko jébbaloon soxna Ami Mbacke mook maam Balla Mbacke mesra am nañu njaboot ñu mën cee ràññee Serigne Bassirou Mbacke njabootam googu tasaaroo ci ëttub xaadim rasuul bi di yoonu murit ak fonk goo xam ñi fonkoon nañ ko ko lépp loo xam ne nii dañ koy tudd di tudd sëriñ mbàkke soxna bëgg nañ seenu njaboot laal ca loolu itam tax na yeneen mag ñim séqaloon ëttub seexul xaadim gi ñi ci baree baree bari akoon lëre nag doxoon na nag ci seen diggante ginnaaw Mammoor Jaara mi nga xam ne nii ñoom ñaar benn lañ woon ba tax na lépp lu Mammoor Jaara daa def daana ci laaj xalaat sëriñ mbàkke soxna ba ci jëfandiku sax su ko masaa di def daanañ wooyi sëriñ mbàkke soxna këram ñoom ñaar ñu bokk jëfandiku sukkandiku fee ñu bokk tëdd itam ci armeeri mbusoo bi ñoom ñaar ñoo fa bokk tëddaale ba tax na itam nag sëriñ mbàkke soxna tudde na boroom saam moomu doom muy sëriñ saam mbàkke moom sëriñ mbàkke soxna rakku maam moor jaara bii nag di ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ko amoon ak cofeel la itam nag ci sëriñ mbàkke soxna fab na ay soxnay soxna nag jébbal sëriñ mbàkke soxna ngir ñu dëkkoo ko daana woo itam nag sëriñ mbàkke soxna ci dëkk boobu itam nag di njaareem soxna sii sëriñ mbàkke soxna Sam Mbàkke moom sëriñ Mbàkke soxna di ko xamal ne yoon wi mujjee ànd ak sëriñ Mbàkke soxna ci njaareem ginnaaw buñ ziyaare ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ba noppi Seexul Xaadim nag jébbaloon na sëriñ Mbàkke soxna yérey café li ko dale ci cafetière palaat ak i kaas tax na sëriñ Mbàkke soxna amoon na cofeel itam nag ci rakkam ji cofeel googu nag mu amoon ci ku baax ki sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul tax na itam nag mbooleem njabootam gi sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul nag la leen jébbaloon sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul itam nangu woon na nag njébbal googu loolu itam nag tax na njabootu sëriñ Mbàkke soxna gi moo xam góor ak jigéen ku ci mat a dem kër seexul xaddim nag mooy wax nag fi nga war a dem ku ci war a samp kër itim nag moo lay sampal kër kon sëriñ Touba seexul xaddim nag ku bëggoon sëriñ Mbàkke soxna la di sëriñ Mbàkke soxna itim génnee àdduna seexul xaddim nag moo wax ne nañ ko denc itim nag ci wetu maam Moor Jaara ndax ñaar ñoo xam ne kan musuñoo tàggoo nag ci seenu dund bu buñ génnee àdduna nag duma leen xaajale te ëllëg yow mal xiyaam itim nag ñaar itim nag ñoo fas yéenee dëkk kon nag nañ ko denc ci wetu lu yaatoo yaatoo yaatu nag la woon tax na sëriñ Mbacke soxna tudde na sëriñ ndaam Abdourahman Lo doom ku jaxasoo woon nag maam Thierno Ibrahima Faty Mbacke ndaamal daaru la ba tax na itam nag tudde na maam Thierno Ibrahima faati doom sëriñ Mbacke Kajoor waajur la ko sëriñ Mbacke soxna defoon ba mu gisatul waajuram waddi sëriñ Abdou Khadir Mbacke ak ndawam ba ni mu nekkee mag léppam sëriñ Mbacke Kajoor mooy ki ko yore woon tax na sëriñ Mbacke Kajoor lañ ko joxoon moo ko jàngal moo ko sampal kër tudde sëriñ Mbacke Kajoor doom sëriñ Mbacke Kajoor miy wéy nag topp ci ginnaaw waajuram wow di sëriñ mbàkke Kajoor ba ni mujjee gis sëriñ Mbacke Kajoor ci atum 1908 sëriñ Mbacke Bousso moom léppam la ndax waajuru sëriñ Mbacke Bousso di soxna Faati Balla Mbacke moo ko waajuram sëriñ Abdou Xaadir Mbacke ñoo bokk maam Balla Mbacke bi mu génnee àdduna sëriñ Mbacke Bousso moo ko taxawu noonu mu amee woon ak jaxasoo ak ay waajuram ak ay magam ba ci ay rakkam ni la amee woon ak jaxasoo ak i doomam rawatina nag doomam jii nag di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke am na ci njabootam Cheikh Mamadou Fadal Mbacke leen yóbbu kër mu wéy nag des nag ci mbàkke bawal di yar di jàng ak di jàngale di dundal nag ndigalul yonent bi salallaahu taala alayhi wa sallam di sàmm itam nag yoon wi rakkam taxawal di yoonu murit ba nim génnee àdduna ci atum 1926 moom doomu sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke bi sëriñ Mbàkke soxna nag mi ngi génn àdduna bisub altene fukki fan ak juróom nag ci weeru muharram ci atum 1345 ci gàddaay gi altene fukki fan ak juróom nag ci weeru muharram ci atum 1345 nag ci gàddaay gi dëppoog nag muy 26 juillet ci atum 1926 lundi 26 juillet 1926 ci nekkinu nag ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ginnaaw buñ ko yëgalee ku baax ki sëriñ tubaa xaadim rasuul ci njaareem seexul xaadim mi ngi doon xamal doomu nijaayam ja sëriñ mbàkke buso ngir mu taxawu ko waxitim nag ne doomu sëriñ abdu xaadir mbàkke bi nañ ko denc nag ci wetu xaritam ba maam moor jaara ñoom ñaar ñoo doon ànd nag ci seenu nekkin fu itim nag di yowmal xiyaam buñ fa dajee ñoom ñaar itim nag ñooy nañ fexe daal ba digganteem ak maam Mor Jaara ab xasab rek na dox ci seen diggante ndigal lii nag la Seexul Xadim waxoon ñi ko yëgal si woon nag doomu sëriñ Abdu Xaadir Mbàkke ba nag génn na àdduna di sëriñ Mbàkke soxna ginnaaw buñ ko jébbalee boroomam ba soxna yi nga xam ne ñoom ñoo ko mujjoon ginnaaw muuru ko ba noppi Seexul Xadim itam nag dajale woon na leen ci dëkk bu sell boobu itam nag di njaareem doon leen sant ci jëmm ji nag di sëriñ Mbàkke soxna ak niñ ko taxawoo nag bu mujj ko ginnaaw ay xalifaam nag nii la tëdde moom sëriñ Mbàkke soxna li ko dale ci atum 1926 ba ci atum 1966 doomam ja kam faye waajuroom wa nag di sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Ja Mbàkke du yooli moo ko wuutu nag ci 1926 ba ci 1966 ñaareelu xalifa sëriñ Mbàkke soxna mooy sëriñ Moodu Yónni Mbàkke moo ko wuutu nag ci atu ba ci atu 1983 ñetteelu xalifa sëriñ Mbàkke soxna mooy sëriñ Ibrahima moom soxna Absatu moo ko wuutu nag ci atu 1983 ba ci atu ñeenteelu xalifa sëriñ Mbàkke soxna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 wuutu nag ci atum 2011 ba ci 2011 boobaak léegi nag doomu sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly bii nag moo mag itam nag ci mbooleem sëti sëriñ Mbacke soxna yi muy sëriñ maam Balla Mbacke ibnu sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly moo toog itam toogaayu sëriñ Abdou Dia Mbacke Douyoly mbooleem sëti sëriñ Mbacke soxna yi itam nag moom moo ci mag ñu koy ñaanal suñ borom guddal aw fanam te wéral ay cëram ak mbooleem nag ñi mu séqal sëriñ Mbacke soxna ak itam nag nuñ ci man di sëtoo di ñaanaa laale nag seen bàjjen bii fi desandi di soxna Daba Mbacke bintu sëriñ Mbacke soxna suñ borom itam ibrahim nag guddal aw fanam nag te wéral ay cëram sëriñ Mbàkke Soxna nag am na ab bis nag ñu koy fàttaliku ci luñ tudde ak màggal muy bisu fukki fan ñeent nag ci weeru tabaski bis boobu nag saa bu del si mbooleem sët yi mu am danañ dajaloo nag ci génn kër ngir màggal fa nag bis boobu nga xam ne nii nag moom la njaboot gi jàpp muy fukki fan ak ñeent nag ci weeru tabaski di ci fàttaliku nag seen maam jooju sëriñ Mbàkke Soxna bu njëkk nag bis bi daan nañ ko màggale ci kër sëriñ Abdou Sakkoor Mbàkke nekk itim nag doomam ji mujj toog nag ab toogaayam ginnaaw bi itim ñu ngi koy màggale ci kër sëriñ Ibrahima Dia Mbàkke moom sëriñ Mbàkke soxna ci bëccëguk fukki fan ak ñeent nag ci weeru tabaski màggal gi itam nag màggalug bëccëg la mbooleem sëti sëriñ Mbàkke soxna yi dajaloo ci nag ñaanal seen maam ja sëriñ Mbàkke soxna suñ boroom nag wanale ko ngën gi mbindeef sallallahu taala alayhi wa sallam ak xaadim rasool nag mi sos yoon wii nag di yoonu murit ñuy ñaan ca doomu taawu maam Balla ba di sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke yàlla na suñ boroom yokku ay leeram nag te taas ñu ci barkeem lii di jafe mi itam nag yàlla ko suñ boroom saafara seexul xaddiim amiin seexul